jaar ci mbedd dee fa bu dekkee du fa jaaraat. loolooy dëgg. mbiru parrainage bi dafa poser un problème. c' est vrai que dialogue bi génnee na ñu wàññi ko six pour cent c' est un acquis bien. li may wax sélection dafay am. waxuma ni sélection am na ba pare parce que constitution bi dafa sélectionné man mënu ma dem nekk candidat parce que at yi ko constitution bi teg na ay critères mais yow xam nga ni. ci nu ñu bindoo ci suñu système ak ci sunu yaay nguur ndey faar nga di ko wax léegi président am na nu muy doxale mu am yenn pouvoir yi boo amee yenn pouvoir yi nga amaale caay-caay politique bi mën nga fexe ci jeu bi nga influer de telle sorte que bii dina bokk bee bokk bii du bokk et en parlant de ça nañu waxante Ablaye en terme de représentativité politique Ousmane Sonko amul ko ko gën a représentatif dans l'opposition je ne parle pas de l'affaire judiciaire machin je n'en parle pas question est-ce qu'on peut concevoir des élections sans je ne parle pas de majorité parce qu'il n'a pas la majorité mais tey en termes de représentativité quand je parle d'inclusivité vous savez Abdou Diouf Delors jàkka jaa ngi nii ku bëgg a nobbi kaay nobbi man le Macky que j'attends moi c'est celui qui soit au-dessus de la mêlée le Macky que j'attends moi c'est celui qui qui moi c'est celui qui réconcilie les Sénégalais le Macky que j'attends mooy ki nga xamante ni dafay parchever cette œuvre démocratique comprenez John Rawlings il n'est plus au Ghana mais ce qu'il a fait au Ghana fu ñu tuddee ay Kwame Nkrumah ou ces grands hommes dañ koy tudd parce que permettre na leen defaral leen ay institutions yu dëgër ba ne même la diable ne même pas ne peut même pas revenir transformer ces institutions donc je ne suis pas ci ci loolu mais ban ban gage la ñu mën a jural ëllëg ci li ñuy def et quand on parle d'inclusivité jàmbaar man duma xeeb kenn Mouhamed sénégalais nga bu la yoon may constitution may na la ko am nga sañ-sañ mais est-ce war nañ teg ay pexe yoo xamante ni su suñu jëlee caution bi ñu yokk mu nekk affaire de milliardaire. Mm-hmm. demain suñu waxee parrainage bi parrainage lan la fi jur ay jënd parrainage moo fi amoon bii paase. eh bii paase borom doole mooy dem jënd ay parrainage ñi doon dem ci transfert d'argent yi ci carte d'identité yëpp la ñuy dajale dem jox ko ay nit am na fi. donc pour man dans un système démocratique démocratie li ñu njëkk a jiite mooy ñi nga xam ni ñu mën a yemale tout le monde maintenant euh, ñoom ci lii ñu jëm euh, pour man ce serait bien que ñu am ay plateformes yu ñuy daje amoon nañ fi aar lu ñu bokk aar lu ñu bokk la moo ko taxoon jóg les ressources et cetera et ba tey problème ressource mu ngi am. bien nekkoon si aar lu ñu bokk. chaque plateforme ak. oui ñoo nekkaat ñi nekkoon fii ñoo nekkaat fële. maintenant il faut. faudra il faudra ñoom ñu xam exactement. d' accord qu'est-ce qu'il maintenant le problème d'ego aussi va va survenir et ça c' naturel. Mm-hmm. ànd boo gis waaw ba bi voilà dañuy wax am na dañuy sóob Ousmane comme temps boobu bi ñu doon bii egaat am na benn gaan booy boo xam day yor mbuusu egaat. koñ bee lay jógee suñ ñëwee ñëppay range seen parce que bu joué ñu bëri euh, dañuy perdre seen égal cest à dans le jeu politique y a pas que Macky qui n'a pas que intérêt bu Sonko bokk parce que y a des yoo xamante ni ils savent que ak nouveau jeu politique bi nu mu ubbee ko mhm. ku nekk mën ngaa génn mais dans les am na ñoo xam ne ils sont là dans l'opposition ils vont dire oui je suis Ousmane Sonko mais bu ñu weetee si pet dañ naan très bien bu sañoon moom du bokk c'est-à-dire sincérité boobu da ci amul aussi moo ci amul loolu moo tam dëggantaan la am na nag ñoo xam ne dañuy bokk de façade nii rek pour vent bu ñëw nañ ci bokk am na ñoo xam ne dañuy nekk si koñ bi commission boo teg ñu yëkkati seen loxo bokk naa daayira bu génn ñu ne bokk naa mbootaay bu xew ñu ne bokk naa très bien euh, merci beaucoup alors Ablaye boo ci amee loo ci sànni ku ci nekk boo amee loo ci sànni en quelques minutes avant ñuy dem pause waaw booy en fait euh, li li may dolli rek booy euh, xam naa sama sama sœur griffé wu ma ko Euh, mais euh, man en réalité. Euh, eh, souvent fii du l' essentiel nga nuyul ma Amina Gueye français xóoti wàññi. waaw ah Aminata Gueye. depuis symbole lañ koy tax dañuy wut ah, symbole. ah waaw na naa kii day fàttali dina ma jàngal. mu gën a jàngal kocc. non loin de là. wax de en fait. Eh, sama grand. man pour ma wax implosion. Hmm. il il me faut véritablement. il faut quand même ñu gis l' acte les signaux d'une implosion. tam implosion fan. au sein de non wax f 24 que il faut wax signe na am. Mhm. mais tamit acte bi tam da ciy topp. tout à mais man pour le moment xam nga tey jii nii booy xool. ki nga xam ne ki nga xam ne moo am problème. Mhm. ñu jàpp ne xëy na am na ay problème te problème bi xëy na ak coalition am la ko amal d'abord. mooy xalifa Sall. te encore une fois je le dis et je le répète Khalifa Sall dafa amoon liberté ak indépendance. Mhm. def choix dem. wala choix bañ a dem comme ñeneen ñu ko amee. bañ a dem. comme ni PDS amee tamit. voilà indépendance ne donc il faut quand même ñu la ko loolu. moo tax ma ne même bu ñu naan du wax l'implosion de yeew Yewwi. Mhm. mais je dis que bu dee Yewwi dix organisation la benn mhm. organisation mu am problème ak le les neuf organisations. mooy taxaw. donc man du ma ne implosion dama naan éclaboussure. Mhm. xam nga éclaboussure. éclaboussure laay wax. <laughs> maanaam lu ñu koy waxee. fettal mais éclaboussement. waaw waaw nu ma du fell fell bi. Ah. fell bi moo siy nekk. donc loolu lay jàpp ba nga xam ne suba xaajaloo dina dina. juraat ah, fell fell mën naa ni xar-xar nag de. voilà non ma ne ma ne fell boobu lay xaar ba gis. neuf yi si biir mu yóbbu la ci si biir neuf mu am li nga xam ne moo di xaajal. waaye fell bokkul ak xar. Euh, xar c'est important. voilà non xam nga euh, écran bi comme euh, parce que tamit nuances yi souvent dafay am solo. Mm-hmm. nuance yi day am solo parce que en terme d' arrestation. en terme en terme d' arrestation d' interpellation dafay am nuance. parce que boo si dem rek boo ko jàngatee bu baax. am na foo xam ne dafa la fa la mën a yóbbu. mais tey jii nii mënuloo ñu jël. plus de cent trente organisation yu nekk ci biir organisation boobu te Ndeye Fatou lu mu wax dama ci d'accord du ñëpp ñoo am yëngu-yëngu bu war ci biir F24 loolu je le reconnais mais dégguñu ci biir F24 euh, booy xool même dernier rassemblement bu ñu def kenn moo ci jël kàddu ñu xale yi yuuxu ko moo doon ki nga xam ne moo di Khalifa Sall par rapport li mu jël à son indépendance liberté pour dem ci dialogue boobee mais booy xool tout le reste ñu fa jël en la dooguma la encore que euh, Khalifa ñi bokk ci M24 leaders yi waxuñu ko dara yuuxuwuñu ko non non mais ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw dans les manifestations euh, ñoom c'est l'opinion ils ont leur propre donc c' est la première fois am na ay manifestations yi doon am. Hmm. da gis waa PDS bu ñu ñëwee dañuy indi seen pancarte Karim Wade la indi seen pancarte Khalifa Sall. Hmm. waa Sonko yi ñëw taxaw ne la parce que même dans la mobilisation chacun essaie lan lañ doon wax la guerre des pancartes et cetera maintenant un homme politique aussi parfois tu prends des positions politiques hmm. il faut les assumer Khalifa Sall en allant là-bas il savait que qu'il avait pris certaines positions et certaines postures et qu'il devrait s'attendre à ça un homme expérimenté euh, mais pour man du fissure wala implosion wala. mais F24 bi am na objectif. mais mais Cheikh Omar ki a mais ce sont les les les militants de Pastef xam nga tamit ñu ko wër-wëral. kenn leader avant ñuy def manifestation moo ne bu leen fa dem di yuuxoo muy Ousmane Sonko. mu ñu dem foofu ay pastefiens yuuxu Khalifa Sall dans la même semaine guerre dans les réseaux sociaux topp ci entre pastefiens et taxawu non mais même xoolal ci diggante boobu non mais je parle non je parle des faits yoo xam ne dañ ciy teg loxo dans la même semaine ci weekend bi mais guerre dans les réseaux sociaux moo ci mujjee topp entre pastefiens et waa taxawu Ndakaaru très bien Ablaye bon dans dans dans tous les cas je pense que bu ñuy doon bu ñu seetloo mbir moomu je pense que lu ñu waroon ñaawlu la parce que euh, en même quand même Khalifa Sall euh, euh, c'est un homme politique boo xam ne dafa am dafa am yoon dafa am tamit taxawin dafa am taxawaay te yàgg na ci langue bi te am na loo xam ne apporté na ko par rapport a la naissance de la coalition Yewwi Askan Wi je crois bien que c'est le principal si j'allais même dire l'un des principaux géniteurs de la coalition Yewwi Askan Wi il faut quand même loolu ñu nongul ko ko mm-hmm. xam ne la koo xam ne duñ ko dégg si wax gu ñaaw ak jëfin gu ñaaw wala doxalin gu ñaaw si lii nga xam moo di carrière politique mi nga xam ne tàmbali na ko bu muy am fukki attaque ñeent dans le cadre du parti socialiste mhm. il nit ki il faut ñu koy waxal li nekk ci moom itam Euh, te quoi qu'on puisse dire perception buy am comme nu ko si Omar waxee si militant bi si sympathisant bi xëy na c'est par la même perception que le mais l'autre élément bi may jeexale si f bi mooy f bi tam ñoom nañu fexe euh, obtenir la libération de de de de de Elma El Ndiaye noonu la El Malick Ndiaye mm-hmm. parce que tam buñ demee ba ko wax wax ni moo wax. Ah. te ñu dégg waxit nga nu mu ko waxee ci moom moo wax ak euh, suñu confrère ni moom moo wax te audio bi wax na ni moom moo ko wax. Mm-hmm. kon boo ko waxut nañ ko bàyyi ndaxam waxut. Mm-hmm. la muy di dëgg. léegi. léegi léegi ba ma dégloo audio ba. Uh-huh. parce que tamit comme on dit. Mm-hmm. il faut savoir écouter pour bien entendre. maanaam da ngay déglu pour mën a dégg. waaye boo yemee si dégg kese doo déglu. Mhm. ba ma dégloo audio bi Ndeye Fatou. Mhm. ma xam ne Ndeye Fatou mii elle a un niveau d' étude par rapport à l'usage la langue. qu'est le français oui oui quand même. Mhm. cocktail molotov man dama dama ne. mais kiñ koy jiñ mën na ko wax. <laughs> cocktail molotov. waaye ka wax sa audio ba cocktof monotov la wax. <laughs> cocktof monotov te loolu man. en réalité dafay nekk élément élément minime sûrement. mais non le premier élément quand une personne sort pour dafay nekk élément day souvent souvent mën na la rëcc mais bu dee da nga déglu dégg da nga déglu pour dégg da koy dégg te jàpp naa ni nag euh, ka wax euh, ak kañu jàpp def naa kañ jàpp jamono ji nag cocktail molotov mën na ko répété mën na ko mën na ko prononcé waaye nag euh, usage de parce que ka wax ne moom nekkul Sénégal italien nag xëy italien lay mm. moo tax mën ta wax cocktail molotov waaye cocktail molotov moom ka ñu teg loxo jamono ji nag war na ko mën a prononcé te loolu dafa nekk élément bu am solo si li nga xam ne souvent da ngay bëgg def confrontation par rapport ak yenn élément yuy d'accord merci euh, réplique waaw Aïcha trente secondes ah Saliou boo boo boo boo amee loo ci yokk ah trente secondes nous reste une minute avant la pause vas-y. oui euh, par rapport à l'implosion dont je parlais dans le F24. en mhm. fait man li may li may wax mooy réel politique bi. Mhm. c'est vrai mais, que c'est bel et beau mais, mais, c'est -ce, un ensemble de cent et quelques parties. Est-ce qu'on peut parler réellement d'implosion au Non, je ne parle pas ah d'implosion. Est-ce que j'ai prononcé le mot implosion? j'ai dit que dans les semaines à venir, les attitudes et postures vont changer parce que ku ci nekk ak besoin bi nga am ci biir mhm. F24 mais c'est ce que mhm. j'ai dit je reprécise ma j'ai dit que ku nekk ak li la tax a jóg te F24 aussi la ñu fay nas di nocc luy Salif wax Salif Joseph wax na ko mhm. affaire bi combat bi assemblée nationale la donc le rôle revient aux députés ci loi yi nga xamante ne moom lañ fa dugal soit